politique. mais le soutien que vous apportiez à Ousmane Sonko est-ce qu'il est encore d'actualité est-ce que ba tey koy apporté je parle pas seulement de d'un soutien boo xam ne ngeen koy wax mais comme ni ngeen investir woon sur le terrain bu njëkk parce que sa situation actuellement elle est préoccupante il est enfermé chez lui barricadé barrières yi ni mënuñu ko gis on sait même plus ci lu mu nekk kenn xamul on vous entend pas. Euh, le soutien bi nga xamante lii daf ma daloon nañu fexe ba bu mu dalati kenn Sénégal. bëgg na nekk si dialogue bi je pense que benn yoon laa déggante ak moom mooy fexe leen ba euh, ñëpp bokk ci élection yi bu leen def benn concession buy exclure nit si élection yi di ñëw donc pour dire que kooku il tient à ce que Ousmane ko participe et moi j'ai intérêt également à ce que Ousmane Sonko participe parce que je préfère bu Khalifa Sall nekkul président ki nga xamante ni mooy doon le président jóge opposition bi opposition bi ñun kan la. Mhm. mooy Yewwi Askan Wi. Mhm. mais bëggoon naa xam.